juróom-ñeenti fukk ak juróom benn ñeenteelu nafar gi lépp mat na asalaamaaleykum mbokk yi ñuy déglu ñu ngi leen di ci tur yàlla borom jàmm ci bëgg ñëpp dégg te nangu yoonu njub bi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw. am nañu mbégte ci leen nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub am na ñetti émission tàmbale woon nañu nafar xibaaru mbindi yonent yi tey nag ci ndimbalul yàlla fas nañu yéene àggale nafar googu kon dañuy tudde sunu émission tey bi lépp mat na. ñu nu ko gise woon ñaari xaaj yu am maanaa la yàlla seddale téereem ñuy kolere gu jëkk gi ak kolere gu bees gi xaaj bu jëkk bi ci téereb yàlla bi moo ëmb tawret saboor ak yeneen bindi yonent yi gisoon nanu ci kolere gu jëkk googu ni sunuy maam aadama dégg dile woon yàlla ba dugal askanam bépp ci nguruk seytaane wante jàngoon nanu it ni yàlla dige woon wàcceel doomi aadama musalkat bu am doole ngir jot ñi réer ci lëndëmu bàkkaar kon ngir jëme kanam pexeem ba wàcce musalkat boobu déggoon nanu ni yàlla woowe woon Ibrahima ci màggetam ne ko dinaa def ci yow xeet wu yaa te dinga nekk buntu barke te xeeti àddina yépp ñu barkelu ci yow noonu gisoon nanu ni yàlla defe Ibrahima baayu xeetu Israël xeet woowu la yàlla dénk mbind yonent yi naka noonu diirub junni at ak juróomi téeméer yàlla yónnee na bànni israel kàddoom gi mu sol ci xel lu ëpp fanweeri yonent li ko dale ci yonent yàlla Musa ba ci yonent yàlla ya jaarale ko ci yonent yooyu yàlla wone euh, dikk doomi aadama fa kanamam te yëgal leen ci ñëwuk ramukat bu jub bi naroona tuur deretam ngir fayel doomu aadama seen boru bàkkaar ni nu ko gise woon kolere gu jëkk gi yàlla façon ak bàkkaarkat yi dafa laajoon ay saraxi mala di santaane ne su deret tuuruwul mbaaluk bàkkaar du am ndaxte peyug bàkkaar mooy dee waaye saraxi mala yi nit ñi daan def ci jamono yu jëkk ya mënuñu woon a nekk peyug bàkkaar ba faw ndaxte wu nit ak wu mala yamul ci misaal su ma amee benn oto fawukaay ndax mën naa dem fa ñuy jaayee oto weccee ko fa ak benn Peugeot 505 mukk lu tax nag ndaxte dayo fowukaay bi ak bu oto dëgg yamul naka noonu itam saraxi mala yi yàlla santaane woon ci jamono yu jëkk ya mënuñoo dindi bàkkaar yi ndaxte dayo mala ak bu nit yemul ni nu ko gise woon saraxi mala yi ay misaal kese lañu woon ba keroog jamono ji yàlla wàcce sarax si dëgg di ramukat bu jub bi indi kóllëre gu bees gi ñaareelu xaajub téereb euh, yàlla nag mooy linjiil di kóllëre gu bees gi yàlla fas ak nit jaare ko ci deretu ramukat bi jóge asamaan tërëb linjiil mooy nettalib ni ramukat bi matale woon misaalu saraxu mala yépp bi mu tuuree deretam ci kaw bant ba ngir nu mën a jot mbaalug bàkkaar yi lu taxoon ramukat bi war a jóge asamaan ndaxte amuloon kenn ci biir doomu aadama yi ku mën a ramu bàkkaarkat yi fa kanam yàlla ndaxte ñépp a yanu sëfu bàkkaar ci misaal jigéen ju yanu paanu ndox ndax mën na yenul keneen paanam mënula am te naka noonu itam bàkkaarkat mënula ramu beneen bàkkaarkat waaye ramukat bi yàlla wàcce di yeesu kirist yenuwul woon ëmb bàkkaar ndaxte mooy ruwu yàlla di kàddu gi nekkoon ak yàlla ci njalben ga ci xelum yàlla mu sell mi la bawoo ba tax ñu tudde ko doomu aji kawe ji ci janq la juddoo yoroon na sunu jëmm waaye yorul woon sunu jikko ju bon amul woon yenu baakaar looloo taxoon yàlla mën koo yen sunuy baakaar nun ñépp dee na ngir sunuy tooñ te ñetti fan gannaaw ga nag mu dekki ngir may nu dund gu bees noot na dee ak bàmmeel ba noot na seytaane ak baakaar ñun ñépp ci kàmbu baakaar gu xóot lanu juddoo te amul kenn ku nu mën a xeetale si ku dul ki jóge ci kaw almasi bi yeesoo jóge ci kaw te soo ko wóoloo dina la xëcc génne la kàmbug bàkkaar gi ndaxte ci kaw la jóge ngir xetali si doomu aadama yi te it ci kaw la dellu ngir ràmmu ñi ko gëm moom la mbind mi wax bi mu naan jenn yàlla képp moo am ak benn ramukat képp diggante yàlla ak nit ñi di nit ki kirist yeesu mi joxe bakkanam ngir jot ñépp kon nag yeesu mooy sëriñ bu mag bi nu soxla dafa sell du def lu bon du taq bàkkaar bokkul dara ak bàkkaarkat yi te bi mu ubbee bunt bi nit mën a selle ci ay bàkkaaram dafa toog fa ñu koy terale ca ndeyjooru yàlla aji màgg ji ca kaw amin ni nu ko gise woon ci linjiil bi almasi bi yéesu nekkee ci kaw suuf amoon na ñu ko gëmoon ñi ràññee ki mu doon bégoon nañu lool ndaxte xam nañu ne diirub junniy at yonent yi doon nañu yëgle ñëwug musalkat boobu te léegi gis nañu ko ak seeni bët noonu ci biir taalibe yéesu yi déggoon nañu ni mu amee ci ñoom ñu dem wuti seeni mbokk ak seeni xarit ne leen gis nañu almasi bi gis nanu ki yonent yàlla muusa doon wax ak yonent yépp mu ngi tudd yéesu waaye ndeysaan lu ëpp ci ñi bokkoon ak yéesu jamono ràññeewuñu ki mu doon ci dëgg-dëgg moom la mbind mi wax bi mu naan kàddu gi nekkoon at yàlla ca njalbeen ga ñëw doon nit dëkk ci sunu biir leer gi feeñ na ci biir lëndëm gi te lëndëm gi jàpp ko ci àddina la nekkoon àddina si ñu sàkk jaarale ko ci moom te àddina xamu ko ñëw na ci réewam te ay ñoñam nanguwuñu ko ni ñu ko gise woon nit ñu bare seede woon nañu firnde yi ak kéemaan yi almasi bi yéesu def yéesoo nootoon feebar yépp ak ngelaw li ak rab yi ak bàkkaar de waaye loolu lépp taxul woon nit ñi ràññee ki mu doon ndaxte seytaane gëlëmal na seeni xel mbooloo ma doon nañu ko laal tey buuxanteeg moom waaye xamuñu ko dañu ko teg ab yonent kese ci biir yonent yu bare waaye gëmuñu ne matug yàlla gépp a ngi dëkk ci moom noonu gisoon nañu ni sëriñ su mag ak kilifa yawut ya bañe woon yeesu añaane ko lool te ci mujj ga ñu rey ko ci daaj ko ci pant waaye noonu la ko yàlla dogale woon lu jiitu te deewug almasi bi ca bant ba dëppoo woon na temb ak yéene ju sell ji mu yëgle woon bu yàgg jaarale ko ci ay yonentam looloo taxoon ci guddi ga sëriñ sa jàpp yeesu ngir rey ko déggoon nanu ni yéesu waxe taalibe ba ko doon bëgg a aar ne ko xanaa xamuloo ne mën naa laaj sama baay te dina ma may ci taxawaay bi mbooloom malaaka mu xel dajul waaye su ma ko defoon nan la mbind mi di mate ndaxte mbind mi nee na nii la war a ame yéesu xamoon na lu tax mu ñëw ci àddina dafa ñëw ngir joxe bakkanam ngir tuur deretam ngir bàkkaarkat yi ni ko yonent yàlla yi yëgle woon bu yàgg yéesu ñëw na ngir li xaru tabaski ma ak saraxi mala yépp doon misaal mën a am ci moom ndax am ngeen fàttaliku ci li yéesu mujjoon a wax ci kaw bant ba laata muy delloo ruwam yàlla waaw mbind mi nee na yeesu woote na ak baat bu dëgër naan lépp mat na daldi tee te bi mu ko defee ridob béréb bu sell ba ca kër yàlla ga xar ñaar li ko dale kaw ba ci suuf lu taxoon yeesu wooteek baat bu dëgër naan lépp mat na te lu taxoon ridob kër yàlla ga xar ñaar maanaam rida bërëb bu sell ba ba ñu daan wis dereti saraxi mala ya ngir muur bàkkaar yàlla teri woon na rida booba te yéesu waxoon na ne lépp mat na ngir ñépp mën a xam bu wóor ne jaarale ko ci deret ji mu tuur yéesu matal na yéeneb yàlla ci li mu mën a baal doomi aadama seeni bàkkaar te may leen sañ-sañu bokk ci ndamam ba faw borom bi yeesu kirist ci boppam mooy ki matal waxi yonent yi ak misaali saraxe xar yi ak mala yi ba ubbil bàkkaarkat yi buntu mucc ba faaw te ni ñu ko gise woon ndekkiteem ca ñetteelu fan ba mooy firnde ju ràññeeku ne yàlla nangu na saraxu kirist ni njëg gu jaadu gi mën a fay bàkkaar yi ba abadan yeesu kirist mooy sarax su mat sëkk si yàlla jox waa àddina si ngir képp ku ko gëm doo sànku mukk waaye dinga am dund dul jeex léegi nag ngir àggale sunu nafar ci xibaaru yonent yi danu leen di ñaan ngeen déglu ay yu xóot te neex yi nekk ci liñ linjil ci mbirum sarax su mat te mujj ci almasi bi yeesu joxe bi mu tuuree deretam ci kaw bant ba ngir fay bàkkaar yi mbind mi nee na yoonu musa wi dafa misaal xéewal yi waroon a ñëw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 noonu toxal na jëfin wu jëkk wa ngir wuutal fi weneen wu bees te ci li kirist def coobarek yàlla bi mu joxee yaramam sarax benn yoon ba faw moo tax nu sell ci bàkkaar bés bu nekk sëriñ si dañuy taxaw di liggéeyal yàlla di sax ci def sarax yu mënula dindi bàkkaar yi mukk waaye nag sëriñ bii di kirist bi mu saraxee sarax bu am doole ngir dindi bàkkaar yi benn yoon ba faaw dafa toog ca ndeyjooru yàlla di xaar ba kero mu daanelal ko ay noonam ci kanamam noonu ñi ñuy sellal ci benn sarax rekk la leen yeggale ci mat ba faaw te it xel mu sell mi seddal nanu ko dafa jëkk wax ne borom bi nee na kóllëre gaa ngi nii kóllëre gi may fas ak ñoom bu bés yooyu la weesoo dinaa def sama ndigal ci seen xol te bind ko ci seen xel noonu mu tegaat ca ne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 bu nu defee noonu dinanu tiit di xaar àtte ba muy taal bu yanj bi wara lakk noonu yàlla yi ku weddi ndigali yoonu muusa wi te ñaar wala nit ñetti nit seede ko dina dee ci lu àndul ak yërmande ku xeeb doomu yàlla ji te fonka di deretu kóllëre ji ñu ko sellale te muy toroxal xelum yàlla mi indi yiw naka la mbugalam wara gën a yéese xam nanu ki wax ne man maay àtte maay fay jëf te newaat na borom bi dina àtte ay gaayam ndaw tiitaange ci ku sàggan ba tàbbi ci loxo yàlla aji dund ci kon ñun ñi dégg mucc gu mag gi bu nu ko sàgganee nan lanuy mën a rëcce mbugalu yàlla ci kàddu yooyu la yàlla arto nit ñépp ngir ñu bañ a sàggane mucc gu rëy di deretu almasi bi yeesu ëmb ku xeeb sarax si yàlla ci boppam joxe warna xam ne sarax ngir dindi bàkkaar dootul am desul dara lu dul àtteb yàlla bu àndul ak benn yërmande yéesu kirist mooy sarax su mat sëkk si yàlla joxe ngir képp ku ko gëm doo sànku mukk waaye dinga am dund gu jeex yeesu waxoon na ca kaw bant ba ne lépp mat na te ndegam yéesu mooy baatub yàlla bi waxee lépp mat na yàlla moom ci boppam moo wax lépp mat na yow miy déglu tey ndax gëm nga ne yéesu kirist matalal na la liggéey yu mucc walla dangay jéem a musal sa bopp ba tey ci sa kaw jëfi bopp nu ngi leen di gërëm ci déglu bi di leen tàggu ba beneen yoon yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li yeesu almasi bi yéene woon ca pant ba bi mu ne lépp mat na